biir Thiès laa doon dem waaye bëggoon ku ma yóbbu biir Thiès rek bëggoon ku ma yóbbu yàgg naa fi lool nga dimbali ma rek ah, nga jëf ah baax daal ma ngeen woon fa fa baax ne woon ma nga fa di ah laay laay la fukki oto romb nanu ma fi fukki oto kenn nanguwu cee taxaw. ah yow góor gi kon yow sa oto bi waaw waaw. Ah. daa am fu ma demoon kaajee ji fii rek fekkuma ko fa. dëgg la am na amul la ma yoroon ma jëlee ko taxi dem kaajee fekkuma fa saa waa ji ñu ni ma ñëwagul te jabar ja daa soxor te bon. déedéet waay waaw mais mbaa yaa ci jàmm rek ah nekkuma ci jàmm kat na ngeen def seen dëkk tàngaay bi tàngaay waaw dëgg la ñu ngi nii waaye xam nga yow sa oto bii nga climatisé ba mu sedd sama yére yu tilim yi nga jël ma ah, baax ma nga fa muy baax ba léegi mënoon na la cee bañ a fekk adduna solo waaw waaw hmm, nit ñi léegi danoo soxor te bon ah amatuñu yërmande ah yërmatuñu mag ah ko ah, yow na nga def xanaa ab nga artiste nga. artiste la waaw man. ah xam nga ne lii ne ah, yombul ci artiste de. Ah, ñun de ah. yoon nañu artiste bu siiw fii bu tudd eh, bu tudd dégg nga maam moomu Momadou Diak. waaye ci Thiès waaye doomee raam la de. Oh, baaxul de. déedéet ku bon a ngoog. bu bon. waaye déedéet waay yow tamit. ah de xamul lii ga def nii. xamu ko Momadou Diak lu muy def noonu bon. biiral na gone yi ci koñ bi yëpp ah, yëpp yëpp yëpp gone yi Cees yëpp biiral na leen du respecté wul mag ñi du maye xaalis réew bu la rombee du la nuyu ah ah Mamadou Diack moomu de góor gi moom lool muy def nag Mamadou Diack kay ah, ñaawteef la mën mag da nga ko wala war maa jox ko cëram ku bon la laaj bu tàng bi ma romb xam ma xam ne tàngaay baa ngi lay sonal. yow nga yow ngay ku baax jaadul ma bàyyi la foofu. Mamadou Diack de yàlla na dee ci laqub xorom. déedéet waay góor gi. kon ndar nga jëm nii. waaw ndar laa jëm dama war a séegi nii dama war a. ah man de maa ngi nii di àgg Cees xool la fa xew boobu. Maodo <laughs> xaaral da ngaa gëj a da ngaa gëj Cees da ngaa gëj. léeg-léeg lu ma fay gëj sax waaye ah. xam nga comme Cees tamit. waaw ah, doxut day raam. <laughs> waaw Thiès ah, nag war na noo dimbali de. Thiès nag dafa xaw a doy ñu ay place yi liggéeyukaay dimbali jeunes yi. yaa ngi koy jooy trop quoi. ah te Mamadou Diakhar loo ci xamul xamul bàyyam sama wóor la nag la juddoo de Mamadou Diakhar kon xam nga ko Mamadou Diakhar bu baax a baax. déedéet waay kon eh. bu baax a baax. bu ma gisee ñemewu maa nuyu ndax man dëgg laa koy wax. ah, ah moom dafa war a soxla góor yu mel ni yéen ngi comme ñoom. man da ñemewu man da faalewu ma ko man ba koy. jéem a conseillé te pourtant artiste mi ngi dëkk ci biir dëkk a artiste la Thiès la dëkk. Ah, ma xam Mamadou Diack bu baax a baax maa ko ngénte. dëgg la waaye yow dëkk ngay jóg di seeti kenn da nga ko a ko xam nga dëkk bi daanaka. prévenir may chaîne bàyyi ni leen prévenir. nga de ma defe ne woon da ngeen may wàcc ah fii nii ngeen di jàdde. waaw fii a jàdde bàyyi ma ma wàcc fii neex na ba nuppi. la neex na ba nuppi doom. bu ñu fàtte ci ñaan nag dee ñu ñaanal. bu yàlla bu ñu fàttante. xam nga lu ma lay ñaanal daal mm. artiste nga. Mm. yàlla boo ni Mamadou Diak. déedéet point barre point <laughs> final. Ah. jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf baax ngay baax ñooy baax a baax jërëjëf jërëjëf waaw ah, man de bu ma sañoon sax dama la doon yóbbu ba sa buntu kër amul solo waaye xam nga dama a jël yéen a ji àgg na yàlla na la yàlla teg ci yoonu jàmm waaw baax na léegi lii cinquante mille da nga ciy jël ay waay ay waay ay lii ay waay lii nag li yow xam naa ko góor gi xam naa ko trop. nii nag nag nag nag yawit nag nag wax dëgg yàlla nag ni ko defee nii nag ah. ju bari sant wa jaag noo tudd ji nga lañ nii nag ay duul rek laa ay duul a ko rey jaag de duul naa duula duula duul ba tase a may jëw lii mooy faf nag sama gémmiñ gi gii laa war